saa su ne ngeen am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak bonjour je m'en vais vous faire la situation du jour ce lundi 13 avril 2020 le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants Sur 144 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 10 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. Sept patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est À ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 178 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons en ce moment 110 patients sous traitement dans nos, dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ma defal leen situation wu bés bi tey euh, altine fukki fan ak ñett ci weeru avril 2020 ministère la santé de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def tey ci téeméer ak euh, juróom-ñeent test yu ñu def fukk ak benn ñoo ñëw nekk positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro yi muy fukki cas yoo xamante ne cas contact lañ doon suivre ci suñuy service ak benn cas boo xamante ne transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey juróom-ñaari patient déclaré nañ leen ne wér nañu tey dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu leen wax tam ne patient yi nekk ci hôpital ñu leen di faj ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xaymaa ba mu démarré ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñeent la ñu déclaré fii ci Sénégal ci ñaar téeméer ak benn yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci wér ñaar ñoo ci génn àdduna kenn nag ñu évacué ko bon dëgg mën nañ jàpp ne téeméer ak fukki patient ñu ngi ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj